sama cofeel seet ko ci jaww ji ba saay tey jege nga ko nii te yëkkoog sa ñaari loxo sama mbëggeel wan na la ko fu ba tey

la quatre la dana neex dana yomb. Ah, du plus. mbaadu ñëw de. ba a ñëw invité naa ñëw sañ sa ñëw toog. <laughs> incha allah foofa toj. <laughs> ani kii Babacar. Babacar mu laa soxla woon nag. waaw sa kër la. nga de ñëw rek dugg laa boobu jugal dugg bu neex. <laughs> waa gis nga de naa de. maa la a kontaan a nga de kër gi maay borom. yaay borom dem génn boo soxlaa ñëppay foofa toj. oui entrez.

nga bàyyi ma bàyyi bu ñaaw. non mais dama la nga maa bàyyi da yaa ma bàyyi. <laughs> yow moom yeneen jigéen changé rek macha allah évolué am xaalis ma romb fii xale bu jigéen bi xanaa sa la la secrétaire la. waaw boobu ko fii bakk na de. mais mais écoute man déjà man bu ma la bàyyi ci kan laa jàpp. ah bari nga ay jigéen nag. non non non non. <laughs> loolu tax ma ñëwaat ndax nag olof jaay da ne. ku xamul fa nga jëm. Uh-huh. dellu fa nga jóge. Mm-hmm. baa nga xamul ma fi andi tey. Mm-hmm. damaa ñëw Babacar. Mm-hmm. damaa am xew. dan may takk le 4. le 4 te Babacar samay bët rafet na. Mhm. sama bakkan rafet na. macha allah macha allah sama kanam gi tubaarikàlla sama xaali xii na. lépp a jong ma. waaye Babacar dafa am loo xam ne luy ñëw ci soow mi te nañ ko seppi lii. d' accord d' accord Babacar bañ bii la topp may mel ni ku doon bëre ji ñu doon ma hypercule. <laughs> loolu may mel ni ku gëlëm. danga nekk fi tubaarikàlla macha allah sig dantaan. yow nga xam ne wàllu bëtë yaa koy def uh-huh. nga xam ne tubaarkaal wàllu gémmiñu jongo ma yaa koy def am na neneen noo tudde mooy ni nga tudde woon keroog nu mu tuddati esthéticienne waay waaye nu mu tudde esthétique ah. esthétique <laughs> waaye esthétique a jongo ma wàllu rafetal esthétique uh-huh. loola ma fi andi uh-huh. te Babacar damay sëy te kër ga may sëy mm. dama faa bari ay noonu moo kenn bëgg ma fa waaye damay dugg ca kër ga moom neex kenn moo ci dara te Babacar mu fay dugg taar laa fay duggee ak esthétique ànd ak bëte nga xamante ni jouri xew mi ku ma réewul ma ree la ku réew ma ree ku réewul may vidéo sama ree la ndax la esthétique bi nekk sama gémmiñ bi su ma sëy jee tubaarkàlla bu may togg di ree bu may teg ndékki di ree bu may togg ree di ree uh-huh. te damaa bëgg li ma bëgg nga may defal nii uh-huh. mu doon giiru dund te xam naa ne man nga ko te dinga ko def li laa bëgg jeex déjà damay am contentement bu baax a baax a baax ci nouvelle bi nga ma wax mm-hmm. parce que da ngaa baax. waroon nga am sax jëkkër bu yàgg. mais nag lu jot yomb. da baax te aussi tu le mérites. dëgg euh, bég naa. Ah. Mhm. di la wax aussi dalal jàmm fii ci Chic Dental. donc euh, gannaaw bi nga xamante ne bi Chic Dental sa yëf la. sama yëf la donc jàppal ne foo taxaw di nga ah, a te sa xol dina sedd. père di la <laughs> dèjà moom sax dama ko fi andi. Eh. ndax xanaa xamoo père. Mm. dama yaakaar ne xar yi muy yar moo moo moo ko jigati. looy wax ni ba ñu kon ba ñu xar. mais du ma leen demee ba ci biir a biir kon ba ñu nag ndax ndax dëgër. waaw damaa koo bëgg nag nga esthétique ko. esthétique waaw esthétique bu nga esthétique ko. ndax yow ñun ñaa ñëpp ñu esthétique gën. man li moo man li moo tax balay namm mais jàppal ne. fu mu toll nii moom. sa bëñ dina weex taal. foo taxaw di nga reetaan di nga sourire. parce que aussi nag li ñuy jéggaani ci bitim réew. am na suñu réew. xam-xam fi. dëgg la engagement baa ngi fi bëgg-bëgg baa ngi fi. donc te ay ndaw leen. dëgg la jàppal ne daal sa ajo dina fayu te di nga kontaan. gëm nga ne lii ah, mais ba mu da ngay reetaan foo nar a toog foo toog da a reetaan. Ah, Babacar li metti na nga ko engagé lii lii. maa ngi koy engagé. waaw kon defal accessoire. waaw boote yu rafet. yoo xam ne sa bëñ day weex taal. foo tax accessoire mooy lan ay takkaay. accessoire daal comme ni ñu ko waxee comme ni ñu koy déggee Euh, mooy li nga xam dañ koy takk. ah d'accord airport sax ah. accessoire la. ah yi may def la. waaw kon nañ koy teg di fa dindi. Hmm, Baye Babacar nag nañ waxante dëkk. Ah. mu ne Baye bu ngeen yoree rek changé ay xarit. mais looy wax nii. yow bàyyiwuma la woon nii nga yow man suma xarit nga. te fii sa la. fii sa la de. bul nax sa bopp. te man maa yow yaay man. dëgg la kon bi tas na. dafa am yu bari yoo xam ne dama ko xaw a manqué bëgguma ko wax sax nit ñi di ko di ko yëg daal te yow da nga di sama nit ma bëgg ne boo ma joxee esthétique waaw ba waaw baaba nga defaale enveloppe jox ma nag ma daal di waaye xew ma ah yaay sama góor di yu bari manqué ne te bëgguma ko war di ko wax dé ah, bari nga xaalis de tigee baaw nga baaw nga rey tigee eh baax na kon marché bi tax na Babacar yaa ngi ci vol di dem <laughs> di ñëw yaa ngi ci vol di dem aller retour yor nga <laughs> kon defaral ma non non non non bon écoute ñun dañuy dañuy dañuy góorgóorlu rek di ut di ut bëgg mel na yow nag ticket ndax ah père nee na yaay ticket international ah amaguloo <laughs> ticket am nga mais en tout cas kontaan na kontaan naa bu baax a baax a baax kon bismillah bismillah dañuy dem ci biir jeex na mais yaa ngi ci dara de man eh. <laughs> xaalis grand. Baye Modou. naka mu. ça va. ça bien merci. di nga sol rafet na. di nga sol rafet daal. dama doon génn nii sax. waaw da nga génn. mbaa jàmm la maa ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah mën naa la am deux minutes rek ah. yee yee yee c'est jàmm. naka ñaw yi. ñaw yi ñu ngi ci kawam. ça se passe bien. tabaski bi moom xam nga affaire yi xaw na seere tuuti. alhamdulilah mais eh, ça va. waaw xawoon naa la soxla tuuti nag xam nga euh, tey li ma taxoon jóg mooy euh, awa sa soxna si soxna yi. awa waaw. dem naa fa bi ma fa demee fekk naa ko ci situation yu garaaw a garaaw a garaaw fekk naa fa loo xamante ni daal vraiment neexuma waxuma sax waxu awa mais xale yi ñi ngi lay laajte nii laaj seen papa xam nga soxla nañ la bëgg nañ la gis. côté finance financièrement aussi manqué manqué na leen su ma sañoon nga dem fa mbaa nga woo leen téléphone mbaa nga yónnee leen loo xamante ni dinañ dinañ ko mën a téye xam nga parce que say doom lañ te xale day màgg. Baye dañ la yónni awa moo la yónni. si si si si parce que yow kese sañuloo ñëw sama kër naan ma say doom toppatoo woo leen nii naa ngaa ngaa ngalak non parce que te pas mon ami doo sama xarit aw mi la yónni mënoon naa ñëwal boppam elle est en train de subir les conséquences de ses actes awa jigéen bu bon la jigéen bu soxoor la reykatu nit la xam nga lu mu def ray doomu jaamur et en retour mu yónni la yow nga ne ok say doom c'est mes enfants et je les adore damaa mës a toppatoo samay doom keroog ba leen seen ndey moom mi di aw a ëmbee ba mu amee ñaari weer laa commencé toppatoo samay doom ba tey ji kon su ma toogee ba moment bi ma toog ne tekk tëye sama bopp tëye sama loxo j'ai mes par rapport à ça heure bu jotee dinaa dem toppatoo samay doom dama koy yar ba mu xam maay kan dama koy yar ba mu xam ne soxor du njëriñ ci àdduna bi c'est ça le problème bu dee laa yónni nag demal ne ko elle naa ka aller se faire foutre wax loolu demaa ma part d'accord Jojo mu nga sa réaction bii nii xaaroon naa ko parce que awa wax na ma ko awa nee woon na ma bul fa dem dafa reew ah gis nga reew ne nag xoolal kër goo nekk kër goo dem mi ngi fa mbuubu la rek boo xam ne danga koy sol soo paree nga simmi ko teg ko nële kilifa mooy wax ak yow man duma ku ñuy yónni responsable mooy wax ak yow boo xamante ni day liggéey yor ay société nga dugg sa yoon nekk kon. non no c'est pas ton problème. sa problème bii mi ngi ci mbedd mi. le linge sale est-ce yaa ngi may dégg. se lave en famille. yow sa linge mu ngi ci mbedd mi. ok. yaa ngi ci mbedd mi. loolu moo tax ma toog fii di wax ak yow. sama yoon nekkul ci waa mbedd bi sama ay jabar lañu woon tas naa ak ñoom yoonu kenn nekkul ci. nga respecté sa ay doom gis nga xale tuddul xale lu ne la tudd gune tuddul gune lu ne la tudd parce que ëllëg mën na nekk mën na dooni lu ne te xale dafa nu mu soxlaa affection maternelle noonu la soxlaa affection paternel sois responsable nga respecté sa doom yi nga boo leen boo respecté wul seen yaay nga respecté sa doom yi. la leen ay humain nit mooy juum yàlla mi ñu sàkk binduñu teg ñu ci àddina chaque jour ñu tooñ ko te daf ñuy baal donc yow la kan ba doo baal doomu aadama boo xam ne daf la tooñ. ça suffit say doom. c'est bon nga dem seeti leen loolu mooy dëgg. lii nii xaaroon naa ko maa ngi tub si ñëw gi ma ñëw sa kër sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor ma jaaga may sa joor sama waa sa ngi macha allah baax gën nee naa la tubaarkàlla ku yor saret la yóbbu kooku bu amee vol tubaarkàlla di nga dégg attaché ba ceinture macha allah la gën ris baax xam nga ni sax tubaarkàlla di nga bàyyi ba takk ko soog koo teral waaye tubaarkàlla teraa ngaa ngi dugg taay xëy na jibagul ba may wuyoo soxna si ma jaaga may sa joor luy problème wee la maal xale yàlla bëgg mais man man nga bëgg. mais Tické prochainement boo mun takk sama tagg ba mu yegg ko tabati man sama tagg du lu ñuy fooy man ma jàgga may sa joor dangoo da xay talaam mi ci àlli bi ci gawan coro bintaak matar binta fall ma con déglu ko ab gilleem ka yaa waay samba <laughs> barki yooyu ci biir suba ko amutoon dama koy créer damay dugg ci benn application bind fa Pelzora nga génn taxaw waaye xam nga loolu yëpp tubaarkàlla neex na waaye lu am ba am mooy nit day am kilifa tey tubaarkàlla ba daree ànd ba tey nga bëgg ma safa ma faale ma ma tax nga këdd sa doom sànni jël say mbokk doo tëmbal fële ah, waaye may na tubaarkàlla macha allah dama laa defal tey surprise lu neex kii ma àndal andi ko teg ko fi tey sama mag la sama sœur sama yaay sama xarit sama nijaay sama grand frère sama grande sœur sama umpaañ ma ngi nii ak sama jumelle mooy sama lépp tubaarikàlla macha allah. kii nag mooy malaat jo ga maalo la bag bi ma may sa pendi joor luy problème bi wéy la maal amul benn problème <laughs> non c'est pas fort na ma won xanaa. am kay. ah <laughs> comment tu vas yéen a ngi jàng bu baax. ah je suis fier de am yéen moom li teel. des na nag. Mm. ana seen yaay mi ngi ci biir. waaw. ngeen koy wax mu changer leen yére. Mm. d'accord mm. comme sa moo yóbbu leen Magic Land ngeen joué ba seen xol sedd. après ma yóbbu leen cinéma ñu ànd restaurant reerandoo ma leen doog a andiwaat d'accord.

ndax ngéwél nga ma indi man dama lay indi lawbe tubaar fakkaal la macha allah man la tàkko malaado ak faatumata ak bii ga yël jooja lëmbal ah. maa ngi ni toog <laughs> ah? léegi nag yow li nga fi wax yëpp dégg naa ko wante ci kii nga bëgg a dugg ah. xam nga kii mooy kan sama rakk la xale bu réew la de <laughs> ci international. bii ma siicu. man kii boo reewul woon du ma ko ba di ko man nag lay toog. man réew ma rek yam ca de. dafa ba yàqoo yàq man je fais ce lu ma neex laay def doon nag ma cercle dikkee nga xam ni moo tax may njàmbaax njàmbaax yi. t'inquiète pas di nga dégg la Samba déglu rek. naan ma ko. ah. <laughs> Eh, waay waaye dafa mel ni ba tey déggantewuñu wuñu de. waaw waaw dafa mel ni déggoo ma. dama ne kii nga bëgg a takk laa wax. Mm-hmm. dafa réew ba dof kii maa ko yar maa ko bocc ci sama digg ginnaaw gii may ndeyam may baayam may léppam comme ni mu la ko waxee ci commencement bi xam naa ko bu baax bu ma la nee dafa réew rek dafa réew. Ah, kontaan man mi toog

ñëw ne yeeyaa da ngay xool ci say doom yow doo rus pour man rek samay doom génn ñu dem benn masig laan bis nga bu ñu delloo seen kër baay bee toog bougé ñu ci kër gi pour mu leer ci yow. awa essaye de comprendre la situation lii am am na ba pare jarul ngay utiliser boy yii pour di ma xeex. <laughs> bu leen xeexee bu leen def arme ça sert à rien du man maa la fesa man maa la nobatul mënoo ma téye chantage ci sama ay doom. se fait am na am na. yow Jojo lan lay comprendre fii lan lan fii comprendre que da jël jigéen ji ma ko man mi la sëyal mu ne la ay at que da nga jël jigéen ji ne ko sa ñaari doom yi nga xam ne moom nga am yow jigéen moo la gën a say doom. xam nga loo war a comprendre da nga toroxal ndax jigéen. xam nga li nga war a comprendre mooy da ngaa dugg lu sa yoon nekkul. lan laa dugg lu sama mooy da wax loolu lu ñu la waxul. maa tey wax mooy da ngaa rey seen rakk ñoom. rey seen loolu nga war a comprendre. lu ma la defagul rek dafa ñëwagul man ngay toroxal yow gisagoo dara yow man ngay toroxal torox ma toroxal say njaboot jalax leen ci métti jalax leen ci lii souffrance yow doo góor gu baax baaxoo guddi gaaxoo bëccëg li ngay wax ci yow mi ngi sa baay téeméer moo tax nag li ñuy wax dañ naan doom ja nday ja mais baay ja doom ja yi ñaar kuppi ko da nga bon yow yaa bon doo nitul dara samay doom dañ fi géndul demuñu fenn warul mënul tee delloo leen seen biir kër baay sa sa jabar yooyu xaw ma say jabar la xaw ma sa lu mu doon ñu gis ko ma xam ne samay doom génn dem fenn naan dañuy doxantu. ok bu ñu dem téye leen fi waaw dinaa la jox nag xaalis pas pour yow parce que yow sama yoon nekkul ci yow boo doom dee ak xiif sama yoon nekkul ci. waaw ci toroxtaange sax nga juddu. moo tax nga bon. merci parce que boo ñàkkee. sa xol day bon. bee boo ok xaalis bi pour sama ay doom lañu. ok dama ne la sa loxo boobu bu mu génn ci sa biir poos. man xoolal damay gore ba dee man mënoo ma jënd de dama lay wax lu leen yow da ngaa xamul sax valeur doom bay ngati ngati di wax yore Jojo man sa jëy yi ngay def xam naa ko gis nga góor bu baax bu la gën xam valeur doom xam valeur njaboot xam valeur jabar bu la muñal bàyyi góor yëpp mi ngi ñëw ti ma taral muy moo du kan Kane yëkkati xaalis bu bëri nag teg ko sama loxo bii boole ko chaque jour mu yónnee ma xaalis du dara lu nu manqué ay firi yu nga fi indi fii la buujoo lépp mi ngi koy def. yow yaa matu góor. doo dara. allez les enfants. allez les enfants. prenez soin de vous je vous adore. ok adooroo kenn yow sa bopp nga adoore ak sa baay ju bon. yow mayal nit ñi jàmm. eh jàmm nañ si biti. yow jaarale nit ñi nga naan da ngay jooy. merde waayu lan la. xoolal eh lenn nag dinaa la ko yaa ngi dem. Jojo yow lay waxal gis nga sa jabar jooj Adama moom ndayam ak baayam ñu ngi lay waaju yóbbu tribunal defante koog yow ba mu saf. jom ba bëgg de gu pot bi doon. yow doo sax ruus père xam nga moom moo te xam na ne man damaa réew moom moom moom dafa réew moom ba dof man moom dèjà damaa réew ban may jaawale kii wér na wala wériw yow nga réew ban jaawale nag dof ba saa yo yowoon naa ñu ruuj fa la sa dal xel comme te xew mi nii la demee te fépp askanu réewande la la loo bee day góoli problème bi amul benn hmm. xew ba nag dama bëgg nga def bande annonce képp ku fa te réewuloo na nga fexe ba bu fa kon man ñëpp indiscipliné di def lu leen neex di def lu leen saf. délégation reewaay bi day tuuru si. waa jeex na. mais tëkk ci bëgg naa ko ah. laay dëgg la mais yow ah yow yow kon da ngaa ba dof. eh da ngaa la ba dof. eh waay lii rek laa bëgg léegi nag dafa am lu bëgg il faut ma wax lan ngi lay déglu. doxi na lawbe. bu am boppu xar ak. yaay ak laxas. <laughs> su ngeen paree ngeen dolli ci seen bos njaw jaw ju jaw ju te su boobaa na dëxin bi du wedde ndax su boobaa père di nga dégg. père Zora yaa woo lawbe yi. waaw mbaa toog nga dëxin. mbaa xar ngay limoo am nga gane lawbeeg seen i doom mbaa dëbb nga fa lax. <laughs> yaa bëgg a géwal <laughs> su boobaa ma xarle ko ma jërli ko mbaa bëgg a géwal ah, waay ñu géwal neex de <laughs> waaye ñun law bi ñoo leen gën a neex ah ñëw ci biir law bi yi kon ay neexeexee waaw da fer bu neexeexee Iba Kazi, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle qui devrait te plaire d'ailleurs. ñëwal fii Biba sa baat nga doon ñaan ah ben am nga sa liberté ça doit être une très bonne nouvelle kaay ñëwal fii ñëwal kaay. Mbadiane. da nga ma doon ñaan sa baat may naa la ko ci xol bu sedd guy Biba. alhamdulilah rabbil alamin mais dinaa la xamal benn affaire. gis nga ni nga mel ni noonu ngay génnee ci biti dara du la topp nekk te man baadoola laa takkoon te yow sax baadoola nga luxe ko xam ko xamee man mii maa tax lu baax boo ko lekkee man mii la fut nooy boo fa tëddee man mii la nga taxaw bëccëg ndar kàmm baalu ma supplier ma pour ma jëlaat la yow bi baax loolu man mii maa la ko wax. xam nga lan mooy recherche jàmm ak salaam liberté gis nga ma libéré nii dafa mel ni danga ma may ay milliards en yow sa kër gii nga tuddee prison lan moo fi lu baax lan la fi nit di yóbbu lan moo fi baax lan. du noonu nga ko jëlee. Hmm? ok kontaan. c'est bien li nga bëggoon am nga ko. Hmm. mais dinaa la xamal benn affaire man boobu man maa la ko wax te mën nga bind beneen góor bu la tiim laa la wax bi baax ak màkkaama bu mu munti am ak lu ma mënti doon bés boobu lay ñàkk bakkanam hmm. te loolu di nga ne waxoon naa la ko su dee yaay yàlla tawal ay xeer may gis に取れないと。kontaan ci yow. jërëjëf Moussa Tall ma Seye Ndare sama doom bi. jërëjëf kàmb leen borom Masaalikul Jinaan. jërëjëf Fekki. waaw man laa nga ma ne toggal déglu ma. donc autorité ci sa kaw doom. donte bàyyi jiite laa nga may ma lépp d'accord mais war naa fu ma yem. nga ne may ma ma di la déglu bu bëri ma la déglu xaw a dara mu lay bàyyi nopp mais comme on nga tey ba naan ma dañ ci waxtaan yow lay déglu. waaw dem naa seeti Jojo waaye daf ma nëbb boppam nëbb ma ci ko ma sëkk sëkk sëkk moom. Hmm, hmm. nee ma Adama bu gisee góor na yëy léegi nag. comme gatsa gatsa la nañ ca dem ko tribunal boobu nga ma doon wax laa bëgg ñu dem ci ak moom mu xam ne dëkk bi am na waaye man leen na ma ci jaaxal Jojo xel na dafa ñëw comme bu baayam ñetti jabaram yi kenn kese moo ci am këyit muy tubaab bi ñi ci des ñëpp jàq ja la leen dëkkee ba ñu demee tribunal ba njëriñ la wàcc ma sam. Chérif nag damaa ne fa yow mi ngi réer. dëkk bu gis nga nu muy doxee moom nag bu la yebee man yebu ma man li mu xam wala mu jàng ko laa jàng xam ko wala ma gën ko koo xam mais seen problème ak ñoom waa France Sénégal dafa am charte yu muy doxee bu la takkee tey kii leen defal sa jàkka bu jàkka jay représenté bu tribunal di rek devant témoin ñoo seede mais nag comme xëy na que moo su mu sax xam ne kii jàngul am la. c'est pas mon problème mais kat sa kat sa la ba mu sas kii sama doom ji am fu ma ko def sama mbir xoolal dañ dem ba mu sas ak moom kese kat sa kat gi. baax na jéem a man loolu laa bëggoon a xam defoon ne fii bu fekkee ne amoo certificat de mariage ah, boo demee. tëddal ne law et puis dañu a xoolal les pages dox. man daf maa bett naa li ma la mayee ba mu dem ba mu mat bàyyi la tool ko comme li wàccoog nga moom may nga ko dele dox ko yow jàmm nga bëggoon na woon def ko. Chérif bu sant wax ci Jokalante maa dem gërëm. mais loolu moom la kenn waxuloo ma la kenn lépp a ngi sobal ko. laa ilaaha illallaah xam nga gàtt sa gàtt sa la. mais dañ koy seet ko ci jaww ji ba saay tey jege nga ko nii te yëkkoog sa ñaari loxo sama mbëggeel la ko fu ne ba tey kañu ànd teng jege ma jox ma sa yow la ma def ba xel bu du jóg ci yow bi lan lay def fii di fëgg ay fauteuil ak ay fleur mais jo moom kañ la dof xale bu tuuti bu toll ni yow mu jëf la man daal teg la ci kër gi liggéey xanaa kii dafa fàtte droit de l'enfant lii rey nit la mais ñii ani seen yërmande âge bi ci nga mën a am xam-xam pour dem jàkk arrêté li ngay def dégg li ma la wax mais kii moom dafa dof la ki xale la mu mag la yow mi yaa dof nag yow kii nan nga koy xoolee naan xale la ah. kii zaar yi la tuddee boxoj ji a roñ jànkaa ñii la di ah. yow kii gis nga modèle am ak kubam ni mu taxawee dèjà kii bu doon xale la da nga gis ween ne noongu ci soo taxaw xaw yu tëdd ne moom ak ëppale fi ne man mi say ñetti yoon waaw daa wàcc xale dina def ay njañ ñii lox yi kii ban marketing la mbaa ah. yënga leen leer mbaa mm-hmm. nga ne genre nit yi lan doon bañ ndax dañ doon bañ ñu jaxasoo ak doomu dëkk bi jaxasoo mélange moo ñu ndaw ñi ñu tuuti ñu ndaw ña waaw kii sama man fa ak pole mi jur sama yaay waaw mbaa yëg ne ku jur sama maam fa ak pole ak kii doon ànd gis naa ko sama photo maam yi ci album ancien album uh-huh. gis naa ko ci ah, kon kii ko maag la boxoj kon kii ko coro dangaa gën a neex la ilaha illallah arrête sax yow moom tonto dama laa ruus ndax sama kilifa te ki ma indi kër gi papaam nga kon man sama kilif la du ma am leen du ma lay wax waaw yow nag juumoo juumoo de mag laa kay maa la mag mag sa yaay yaa may dégg te nag juumu gis man ci kër gi laay te dama fee bëgg a liggéey ba karamay dee wala ma karamay sëy kër gi nag damaa bëgg nga may ma fi jaam ngeen may ma fi jaam laay wax ngeen am jaam eh. su ma fi may jaam du ngeen fi am jaam hey. lu leer déglu ma yow sa gémmiñ gu gu dar gi yow ba nga dee wax dama yaakaaroon ni xale nga dëgg la yow yaa ma mag mag dikki mag suñu ndey suñu maam yeeg suñu maamaati maam. dëgg la kay. xam nga lu ma la bëgg a yëgal nag. eh xool ma gis nga kii mooy ticket international moo war a sëy si ci kër gi te mooy chef ci kër gi moom yow boo ko neexul sax man jàll la ca biti. waaye Pierre kaay wax la leen. borom dëj bi mën naa jooy jooy dëjëm de kii deele jooy ko moo kii deele jooyal mën naa yuuxu di gis nga kër gii mhm. da ngay def traitation parce que mën naa yu fitir ki biir sëy du ma xaar ku ma ko doon soo ma waxee loo wa toox neex nga ñuus dama la ñuus ba nga tax nga mel ni libéré gën ma libéré yaa ngi may dégg eh, ok pour eh, eh. réew la man daa ku ma de bul yegg si de bu ma ragal lu leer laa lay tegal fii ci table gis nga mbaam gàttul ah. waan ci jur gi la bokk ah. gis nga raxasit ah. ndox la moo tax mu tilim yaa ngi may dégg. manoo ma ëppoo muy mel ni tëj dërëm yaay boo woon fi xewoon. auzu billahi mina seytaani rajim yow na xam naa li nga bëgg sama takk gi nga bëgg a yàq ndax danga di cëpp ci kër gi yow mii ko la xool xoolaat la xam ni jënde nga. barki ci Touba Goro la jógee. waaw yow Goro nga jógee. ba tey seen baa ngi ci bakkatam buum gi jaaxle. dëgg la yéen lan dem kii fi mu si la. kon mi ngi lay soog ñor ma def très bien même ça se voit. Adama aduna du nii tout le temps mer jigéen dañ ci soxla douceur. mais attends t'es pas obligé d'être comme ça. c'est toi qui m'apprends la vie yow yaa may jàngal aduna walla man dama juum wala wala ñu ma fi tegalaat beneen chose. ok vas-y vas-y dama jaar ci awa mun ma yow ak say wayjur da ngeen ma bëgg a yóbbu tribunal waaw wala déet. Effectivement. Ah ah. Adama, t'as fait les intelligente. soo ma yóbbee tribunal ban ndam nga mën a am zéro résultat man ak yow suñu sëy bul fàtte ne musul am kay du mairie du tribunal du police du gendre ça sert à quoi alors may sa bopp wooy bu dul fay dafa yóbbu ex jëkkër ji tribunal te amu ci ndam lii nga bëgg non sëy daggan na tas aussi xaraamul yàlla mooy maye mooy xañe ok c'est pas la peine nga yàq sa der ci noonu d'accord je sais que tu es dans le besoin dinaa la jox xaalis c'est pas pour te corrompre parce que tiitu ma ragal lu ma dara pour dépanner la le tànk nga gis beneen góor bu la jox goro nga yëy ok. <laughs> hey dama tu l'enfonces au fin fond de ton cul. góor jigéen bi nga. man nga góor jigéen yow. soo ma ko waxatee je te casse la gueule ah. imbécile. imbécile répète. su eh, te tee laa la wax. répète. ah aw ma de mariage. répète. ma ne la góor jigéen nga. aw ma papier de mariage ok mais certificat médical.

Wana lokofune batay Kañu ànd deng Jege ma jox ma sa loxo